waaw auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim man la Omar dem bon di maa keroog rek ñëw nañ fii laaj ma te man xam nañu jàmm kees rek laa bëgg waaw ndax du ma noppee wax du ma taayalee wax encore ci dëkk bi yàlla def fi jàmm élection yu jub yàlla may ñu ndam yàlla may président dab élection bu fi mos a jaar rek bii na ko dàq mooy élection yi jëm di leen gën a ñaaxaar rek di gën a góorgóorlu bàyyi xel jigéen yi jigéen ñi dañ leen war a bàyyi xel ku mel ni Ndeye Fatou Ndiaye di nekk coxol euh, électorat métti na ndax ay ñi ko wër yàlla da leen a may yàlla may leen wërsëg àdduna mu dem ak ñoom élection daal leen te yàlla may na Ndeye Fatou loo nangu nangu rek yàlla may na ko kuy mobiliser la ay nit ndax yàgg na lépp lu muy def daf ñuy woo wax ñu ñun jigéen bu fi nekk rek taxawu taxawu nit ñi ñun mouvement religieux pour l'émergence xam nañ la waaw ma mouvement religieux pour a ci lañ ci la ñuy waxee Ndeye Fane Ndiaye jàmbaar la ndax ñooñu dañ leen a miin soxna Mariam Diop Sylla it nañ ko bàyyi xel yàgg nañ ci parti bi te yàlla mun na leen président ne leen bàyyi xel Mbourou Dieng représenté parti socialiste di nit ku baax keroog gis ngeen bi nit ñi demee xombal dafa rafetal lépp teg lépp ci yoon man nag du ma noppee wax ci lu baax ngeen baal ma élection yi ñu du élection yu yomb élection yu jafe lay doon dara du ci yomb ñu nangu it président de la république lu mu joxe nañ ci ànd teg na Augustin nañ ànd ak ñoom Augustin liggéey ak ñi mu teg ñëpp nañ ànd ak moom liggéey ci commune bi ak département bi xam nga directoire de campagne bi buñ koy samp bu ñu fàtte mouvement yi nga xam ne yàlla may la leen doole ñoo ngi fii ku mel ni mouvement bu mel ni mouvement Ablaye Dieye dix mille voix tuutiwul ku ko indil président de la république am na dëkk yoo xam ne tey boo leen dajalee amuñu dix mille voix te moom am na ko biir kees mouvement bi mel ni bu mu Habib Niang yàlla may na ko doole day génn di social di def ci dëkk bi lu baax docteur Pape Amadou Ndiaye nangul na ñëpp oyofal na ñëpp fu mu dem oyof na xeebalu kenn bésam booy bu mel ni Ousseynou Diouf gis ngeen ni mel jaboot la ci président de la République yéene ñëpp jàmm aussi di jàppale ñëpp daal man dama bëgg rek élection yi mu nekk élection bu rafet Idrissa moo ngi rafetal di recevoir ñëpp di seeti ñëpp di ci ànd ak ñoom ba Diatara man dama bëgg jàmm rek la bëgg ñu am ndam rek laa bëgg fi ñu toll nii xuloo waruñu lenn waruñu xam nga lu ñu war joxante loxo ñu ñëpp ñu ànd benn nekk benn Kees Debout ñëpp nañ ànd nekk benn ñu xam ne tey Benno Bokk Yaakaar moo soxla président moo soxla yàlla na ko yàlla may ndam te gis ngeen président jàmm rek la soxla xam nga di gërëm ñëpp di sant ñëpp mais day faat njaay na ngeen ko bàyyi xel dafa seq ak ñoo xam ne yàlla may la leen wërsëg aduna Alioune Sarr nag téye na ko jàpp na ko téye na ko ndax bu koy fal keroog di ko ndomee boobu moo ngi tëdd ca lalu te loolu ku la yëgul du la ko def waaw ni mën nga ne kii de comme daa feebar kii mais ca lalu la ko jël fal ko li mu ko war a fal ndax jigéen ñi ñoo yor électorat Sénégal nañu waxante dëgg lu président bëgg ci jigéen ñi la koy amee nañ leen jox cër te jàppale leen allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir alhamdulillahi rabbil alamin imam Omar Deme chef religieux à Thiès jërëjëf yal na yàlla fay ñun nag ni ma ko daan faral di waxe dëkkuñu Guinée dëkkuñu Mali dëkkuñu Cameroun Sénégal lañu dëkk waaye bi ñu amee Sénégal ba noppi nag du ñu am benn dëkk boo xam ne bu ñu dee foofu la ñuy suul incha allahu muy Thiès moo tax man grand sëriñ de Thiès lu xew ci Thiès faaw ma jël kàddu wax ñi ngi jëm ci élection yu metti élection yoo xam ni du yomb ku defe ni dana yomb xamoo li ngay wax kon président am na ñoo xam ni nit ñi bàyyi nañu leen xel ngalawaay yow président Macky Sall bàyyi leen xel ku mel ni. soxna si ñu naan ndey Fat Ndiaye coxol di femme de développement waaye di femme boo xam ni day def social subaat ngoon guddeeg bëccëg boo demee coxol wala nga taxaw nootoo dinga xam kan mooy Ndeye Fat Ndiaye département bi ñépp a ko bàyyi xel mu jiite fa jigéen ñi am seen njariñ am seen taxawaay kon kooku président li la war mooy nga gën koo taxaw ndax nag ñun sa ndam rek la ñu bëgg te insha allahu duñu la war duñu la war mukk danañ la bàyyi xel képp koo xamante ni bii bu ñu taxawee ba nga jox ko dara mu doon sa ndam daañu taxaw nga jox ko dara mu doon sa ndam ndax mu ñun mouvement religieux pour l'émergence sa ndam rek la ñu bëgg kon Ndeye Fatou Ndiaye bu coxol na nga ko bàyyi xel ministre Alioune Sarr bàyyi ne ko xel mi ngi koy jàppale ci la mu man waaye président na ko gën a jàppale ndax nag day fat jaay coxol bu ñu sañoon tey day séddale ndax koo xamante ni bii ay centaine de nit ñoo topp sa ginnaaw kooku li la war mooy nga gën koo bàyyi xel waaw na ko gën a bàyyi xel waaye ci jigéen ñi Cees yii xoolal ku mel ni tey soxna Mariam si laa moom mi nga xamante ni bii jigéen ñi Cees yi bàyyi nañ ko xel ndax am na seen njariñ te mu ngi leen di jàppale te daf leen a jiital ñoom ñu jiital ko te fakkastaluñ ko kon li ma bëgg président nga gën a bàyyi xel soxna Mariam Diop Sylla nga xamante ni bii yàgg naa ànd ak yow ci parti bi waaye ku mel ni soxna Mbaru Dieng ca Xombol gën koo bàyyi xel jigéen la boo xamante ni bii am na taxawaay te alxuraan daf ni xuzu xijrakum na ngeen am taxawaay soxna Mbaru Dieng jigéen la waaye du ni mukk su doon góor kon président li ma faral di wax naan jigéen danoo bëgg ndam ragal gàcce kon jàppale leen bàyyi leen xel Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur bëgg nañu ci yow ni nga taxawoo jigéeni xombal yi waaye ni nga taxawoo jigéeni Thiès yi waaye ni nga taxawoo jigéeni département bi am seen yërmande di leen jàppale subaak ngoon guddeeg bëccëg sa wërsëg jumaa yi seede nañu ko jàkka yi seede nañu ko néew di doole yi seede nañu ko kon Antoine Félix Diome bu ñu gisee nga jëf-jëf ju baax da danañ ko wax ndax wa amma bi nahmati rabbika fa hadis ñun mouvement religieux pour l'émergence ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal suñu borom yal na yàlla dolli sa jàmm nii ñu la ko waxee képp ku ñu def gis nga defal ndax àdduna ñaare fi am li ma Omar dem def ba mënuma ma mënumaa moom loolu yéen ñaar la waaye li ma defal ba man mënuma koo bàyyi loolu it mbir la kon li ma bëgg ministre de l'intérieur yal na yàlla gën a dolli sa jàmm ndax amal nga askan wi seen njariñ kon gis nañu sa liggéey boo liggéeyoon beneen liggéey bu dul liggéey bii ñu gis dana taxaw danoo sa wax waaye dunoo gis nga liggéey liggéey bu rafet kon yal na yàlla gën laa jàppale mbooleem li nga xamante ni bi président investir na leen ñun li nu war ndax ñun président lañuy jàppale nëpp ñu suñu bopp président Sall la jàppale man grand sëriñ maa ko waaye jàppale gi ñu koy jàppale ku ñu gis sa diggante ak moom nga dëggal dëggu doon ci ànd ak yow Augustin Tine jàmbaar la Augustin Tine nit ku baax la Augustin Tine nit ku bëgg président Macky Sall la kon bu ko defee ñu jël kàddu gi jox ko nga xam ni mooy El Hadji Ngagne Faye bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa mawlana muhammadun rasulillahi sayyidil awalina wa ala axirina mbokki Thiès mbokki département bi ñu ngi leen di nuyu ci turu mouvement religieux pour l'émergence kàddu yi fi jot a jib muy sunu njiit du Cheikh Omar Deme nga xam ni jàmm rek la bëgg wax ji rafet na tegu na ci yoon bëgg rek ndamul président de la République waaw teg ci it nag ah, waxu fa tabarakallahu sunu doom ju baax ji grand sëriñ de Thiès fa tabarakallahu sunu xaalixi na waxam rafet na jekk na te ñun li ñu tax a jóg mooy al ihsan rafetal li nu yëkkati nag mooy wa zakir fa inna zikra tanfaul muminina loolu yàlla moo ko wax fàttali dina jariñ jullit bi bëgg a ko ñu ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi di sant sunu waajur fa tabarakallahu di santit it borom réew mi muy le président de la république son excellence tey ma nga ca fa tabarakallahu ca Russie ngir lan ngir askan wi rek ngir lan ngir bëgg jàmm ngir lan rek fa tabaarakallaahu ngir dénk bi ko yàlla dénk mu bañ cee am benn benn luy suuxe di ko gërëm di ko sant di santit nag li tax nag nu yëkkati tey kàddu mooy góor baax na jigéen baax na mhm. ca politique dana wax ni yontu yàlla Muhammad mi gën ñëpp ca mbaaxam ga nga xam ne moo gën a baax ñëpp bi muy dugg mi di mën a war a politique la fa duggee ñu mu woo xale yu ndaw yi ak xale yu ndaw yu jigéen yi ñu jàppale ko fa tabarakallahu mag ñi doo ko ñëw ba tey mission réussir muy sallallahu alayhi wa sallam jàppale bi nag mooy ndey faatu njaay bu coxol kooku xam naa ne président sax fàttewu ko ndax président ba fa du xam fakk mukk du soppi ko it ci nitam waaye ndey faatu njaay bu coxol femme développement femme sociale baax lool bëgg nag la président laa la république te président lii nuy wax bu ko déggee dina xam ni ndey faatu njaay ku ko bëgg la mu nekk nag ak gor su baax muy le ministre Alioune Sarr fa tabarakallah mu sedd ko cër it nag keroog bi mu koy fal ma nga ci hôpital kon loolu cër mënu ko weesu ñu bëgg rek président ñun mouvement religieux pour l'émergence ndax gis nag leen dong moom tax a jóg xasunu kenn léebunu kenn lu baax rek agit sa ndam na xayrul umóor yi men xawaatim loo gis rek mujj gërëm mu am solo bu nu sañoon sa ndam ndax doon wax ni ñaar bu ñuy bëree ki ki boot moytu ko ndax bu la daanee boo boo ko daanee ñaare lay war te ñu seen ndam rek lañ bëgg Ndeye Fatou Ndiaye dimbali ko dimbali ko nga xoolaat ko bu baax baax a baax teg ci nag la brave femme kan la femme bi nga xam ni la loyale kan la Adja Mara Diop Sylla Matar Sylla Khary Diop baax lool bëgg président la république loolu bu ne Adja Mara Diop président ci boppam ak ku mu mënti noonu ak le ministre de la république bu ne Mara Diop Sylla dinañ xam ni jigéen ju baax ju social joo xam ni leen doon ko tax a jóg dimbali rek ba président am ndam loolu loolu Adja Mbaru jeg nag dañu wax ni koo xam ne say maam mënoon na ci xare ya boo xeexee moom moo lay moo lay gañe fa tabaarakalla sunu xaalis xëy na ba juddu la bu rafet jikko ju rafet ba noppi nag mu topp nag ci nag ci le maire de Xombol muy nag magay booy bu baax mi. nga xam ni le grand financier. ñu ànd rek jàppoo lan pour bëgg rek ndamul président la République Adja Mbarou Dieng waaw Adja Maram si la ndey ndey ndey ndey Fatou Ndiaye coxol waay waay baax na jigéen baax na ñaari tubay ñaari ñaari loxo mooy mooy takk tubay ñaari loxo mooy mooy mooy wodd ca fa tabaarakal asuru xaalis xëy na ñi leen tax a jóg du pour parloo déet boo waxee ñu ne xaalis déedéet xaalis dafa ami bët waaye xaalis boo amee bëtit kay jël suuf xapp ca bët ya kooku jar naa wax ndimbal da cay fekk loxol borom leen dong moo leen yëkkati social Ousseynou Diouf ah Ousseynou Diouf mii le grand financier la nga xam ni lu mu am lu Ousseynou juuf am def def na ko ci ci ci askan bi bu nawet jotee ma nga ca kàmb ya bu nawet jotee ma nga ca ma lu lu ne ma nga ca pour rek euh, euh, ndamul askan bi kon ñu ngi ñaan son excellence le président la république ndam loolu ngay wuti ca Russie te ndam li du pour yow pour Sénégal rek la yàlla mi nga xam ne moo bëgg lu baax ca bëgg ndam yàlla na yàlla may ndam waaye nag le ministre de l'intérieur kooku moo kooku boo gisee ma ne xayru euh, xamaan ku mujjee mujje ko taxul mu maanaam mu mu mu baax waaye dafa baax muy Antoine Félix Diome taalibe sëñ Saliou boobule nga xam ni waxuma xombal waaye amul benn ku ne ci réew mi koo xam ne fa tabarakallaahu amul ngërëm ci moom wala gërëmu ko ngir lan baax ngir lan kilifa guy dégloo la ngir lan kilifa gu am njariñ kilifa gu social goo xam ne ñun mouvement religieux day wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal moom maanaam lii ko euh, président dénk mooy les élections yàlla ci am ndam ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba kullu amin nag wa antum bi xayr asalaamualeykum wa rahmatullahi taala ñu ngi ñaan sunu borom ñu ngi ñaan sunu borom le ministre la république am Pape Amadou Ndiaye kooku moom ma maanaam leen a reer fàtte gën wóorul ndax Pape Amadou Ndiaye fa tabarakallahu bu dee jabar ju feebar moo ci gën bu dee yow nga feebar moo ci gën bu dee sa mbokk mu feebar moo ci gën te it doo la laaj dara keroog bi xale yi accidenté waa axlu murit yooyu la moo fa njëkk jël génne xaalis bu bari ngir lan ngir nangul président rek ak jikkoom nag ñu ngi koy ñaanal moom itam Pape Amadou Ndiaye yàlla ko yàlla defal ndam conscience bi nga xam ne moom la ko président jox yàlla na am réussite ci daraje yonent bi sallallahu nuyu nag jabaram ju baax di mat leen ñu ngi lay nuyu bu baax la ziar asalaamaaleykum